سريها أغثوا أغثوا يا سريع يا كريم أغث أغث إلى القبر ما يسأل العبد عن كمون وكل خادمي واشفع لحبك إذ تعذ عليه صلاة الله وسلامه والتقين يا شر السحر إنا في ذو النبذ عليك صلاة الله وسلامه عديد المخالق المهيمن حيث بذل عليه مع الأهل الكرام وصحبه عديد الذي وافى به الروح في النفذ سما يكتي كنا لكن يا هلا شوق تفعل بالأمين شي أمين كي ينتمي صلى الله عليه وسلم الذي ناقمنا نفث ولنا معنا موي دروع له شي قلم روح الامين روحو كيغا خامني موم موي امين الله الرحيم جبريل متى بعث وقت وين كو يوني cofeel ak yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne jibril la wàcc ak wax yu duggee ci yàlla def ko ci xolam cofeel gi nga am ci moom cofeel gi yëkkatiku na boppam lay wax kuy wax ak sa bopp dangaa wéet waa moo ko wax walla dangaa amut koy wax ci li ngay wax lu may sa bopp am na ku wéet ba amut ku mu mu génnee ci boppam keneen koo xam ne moom lay def ak dialogue bi nga xam ne moom la bëgg a def am na koo xam ne lim am am nañu lu ci nit ñi am ku nekk ak sa kenn ku nekk la nga am mu jox la ko am na ci loo xam ne nag digganteem ak boromam rek la loolu lay wax ak boppam alayhi salaatullahi wa salaamu maal aali ak ñooñam wala asxaabi ak saxaabi yent maa xaadisul fekk aji xew xadis seen ngi xew kon julli googu ñu toogee toogaay bi mu ngi beesaat bu ñuy continuer di toog mu ngi beesaat bu ñu jógee mu ngi beesaat ndax maa ngi julli ci yonent bi julli goo xam ne fekk mbir a ngi xew rek yàlla na julli googu di di xam alayhi salaatullahi wa salaamuhu min al abdi tukkee ci jaam ibrahima jaam nga xam ne mooy wal ahda te mbir moom kóllëre maana kes mu ñëw ko ngi julli ci yont bi julli googu nga xam ne ci jaam boobu la jugee kay Ibrahima ki nga xam ne kóllëreem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañut mukk لك العهد مني يا رسول فإنني أحبك حتى حين في القبر أدفن لأن نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما لا جخ سما كولري كولري جي موي نه <coughs> دما لي بëgg ñii suul bu ñu suulee ba nay dem nañ te ma des ci bànneexu ci mbëggeel boobu leen <laughs> sarafal waaru na an def ni jussati baqiitu bi ahya li yowmi liqaayi ñii suul mu ne sama jëmmu buñ suulee ba dem nag mu ne man ma des di bànneexoo cofeel googu nga xam ne moom laa am ci yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam laa layta shaari kayfa ahdiya indahu inna lahu indi la aadamu wathiqi xalaftu lahu bizaati ni uxibuhu widaadan safiyan fa huwa nahji wa mawt mu ne maa ngi elentoon ma xam sama kóllëre ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man de bëggoon naa xam sama kóllëre ci moom nu mu mel ci man de xam naa ne bu dëgër la loolu mooy xam naa ne moom sama kóllëre ci moom dëgër la ndax xam na ne yonent bi maa ngi koy gëñal ci yàlla jëm yàlla ji ne bëgg naa ko mbëggeel loo xam ne mbëggeel bu sel mooy sama yoon nga xam ne ci jaar pour xamale nag ne dëgg-dëgg sell ak mbëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy nga topp si sell ak mbëggeel ci yonent bi mooy lay yoon yonent bi nekk sa yoon bu ñaari yoon taxawee rek yoon yonent bi moom nga tànn bu ñaari wax taxawee wax yonent bi moom nga tànn tur taxawee turam moom nga tànn bu ñaari bëgg-bëgg taxawee bëgg-bëggam moom nga tànn فشولية سما سهلة ذكر المصطفى موي تود يونتو صلى الله عليه وسلم ومديحه اك تاغ سما سهلة كاي موي تاغ يونتو رك صلى الله عليه وسلم بحمد إلهي ci sant ak yàlla nag laa fi suuqa deet genn ak topp wala rafas هو مؤمن أنتم صلى الله عليه وسلم العبد مود جام بحقا تدق مود جام بيال دق دق والأنام من ذي لنجا تيالا نعبيده أي جام ملي جامي مومل أك جامي توب دومل نب جامي مومل يالا يونتو بي نك jaami moomale moomale yàlla la ñëpp yàlla leen yàllaa leen moom waaye ñëpp joxuñ yàlla li moom jaami moomee li yàlla ak jaami moomale yàlla yàllaa la moom nga nangu ne yàllaa la moom ci topp ci jox ko lépp moo tax mooy jaam ak yàlla dëgg tax bàyyi na ñetti maqaam yi gën a màgg yonent bi yàlla jaam la ko tuddee may nëw la maa xaama abdullah ba muy oote jëm ci yàlla alhamdulilahi alladi anzala ala abdi alkitab ba yàlla di wàccee ci moom alquran te jaam la ko tuddee ba ko yàlla rañaane subhaana alladi asra bi abdihi sell naa <clears throat> tudd naa sell ak ki nga xam ne moo rañaane jaamam <clears throat> moo tax moo wax ne ana sayyidu wala ji aadama wala faxra waaye sangi jaami doomi aadama yëpp waaye du looy du du du du du ma puukaréew ci loolu bàyyi na li muy puukaréew mooy nekk jaam nekk jaamab yàlla mooy puukaréem waaye nekkul du puukaréewoo nekk sang mi léegi bu nekkee ca peeb yàlla ba njaam nga loolu lañ puukkaree bu nekkee ci pay mu ndee nekk sang puukkareewut <coughs> loolu nekk ci pay yàlla bi nekk jaam moo gën a nekk ci pay mu bi nekk sang tax bàyyi ne yonent bi mooy jaamal bi yàlla mu ngi naan yonent bi fa kun yàlla na nga nekk lii ñaayal ma yaa muxtaaru yow muxtaar ki yàlla tànn kun yàlla na nga nekk lii ñaayal ma la del jëlees fa xam mu ngi wax yonent bi nag na nga teew fa man ba buñ may suul ci bàmmeel fa kun nekkal li muhibbin ñaayal aji sopp في الأمور تمبري بأسرها تمبولة سن نكال صوبي بينك نكال كتمبولة من برم أغيس قتلكو سريعا تلوغا ويا كريم يو أجيتا دي أغيس أغيس قتلكو قتلكو قصيدا بنين بنين لكو أغيس أغيس يا مؤسس الكون لي غربي بالمصطفى سبا صفوة العرب Thank you. ladal qabri fa qabru mahma yusalu waxtu wuñ fa laajee al abdu jaam bi an ku mu ci yéen fa qul xaatim xam nga kuñ laaj ci xabru yaa war tontu kuy sa yonent kuy sa borom kuy sa yonentu yaa koy tontu waaye nag dem na yonentu bi sallallahu alayhi bu sallam may laaj bu ñuy laaj jaam bi kuy sa yonante kuy sa soppe koo toppoon yàlla bala maa tontu neel kii mooy sama bëgg nit bi waxul xaadim yi tontu sama yow yaa may tontu washfa yàlla nga ci sa soppe bi is is bañ koy bañ koy dekkal bu ñaanee dafay ñaan ñaan ak jaam bu lot bu amewul dara ndax kuy ñaan buur bu amee lu nekk booy ñaan doone nga am dara bu santee ba wax la liñ ko may nga ne kii lum doon ñaanati te sama rijaalu bil xadiimi wa innani ساجلهم لا أنسني وأسابق ساجلهم ما عشت فيك وإن أمت يساجلهم فرعي وإني سابق da góor ñu bari tuddee nañ seen bopp liggéeykat yonent waaye ne du ma dëñ mukk di ràbbalante ñoom bu ma sama bangkas. ñi fàqee ko ci man ñi buuxanteeg góor ñooñu ci lefoowu kon mooy loolu mooy la man ngeen naa ci buuxante bi ndax wa enniyee saabiqu man jiitu naa waaye ñëwee fi bàyyi laay bàyyi ñi buuxanteeg ñi buuxanteeg góor ñi fu mu neex na nga bokk ci ñooñu fu mu neex nga bokk ci ñooñu li la ci boole rek mooy li ci boole ñun ay jikko la ak ay jëf ak ay bàyyi ay jikko ak ay jëf ak ay bàyyi ndax bàyyi ba mu ñaanee yàlla doon la ko saxaaba yi dafa waa ku lii la bi tamaama wirasatin bi fi'lin yuxaaki fi'lahum wa kadal xulq yàlla may ma ñoom ñëpp ma doon leen doon lu bu mag sëkk ci jëf ju niroog seen jëf yi ak jikko ju niroog seen jikko yi sama am am dara nga am dara am njëg rek la laaj am kala, nga am kaala am njëg rek la laaj am otong nga am otong, am njëg rek la laaj kër nga am kër gu am dépasse nga am dépasse am njëg rek la laaj am mbooloo sax fural rek la laaj bi feelin yu xaakii feelahum ba këgal ko waaw <coughs> ah, que am na ñoo xam ne mbooloo mi uti leen ñoo ut mbooloo mi mm-hmm. parce que yow yaay ut ni ñu bëggee nga nekkee ko te bàyyi waxoon Mouhamed la mu jëkk ni ba mu ko laajee ne ko sëriñ si niñ mel bàyyi na ko ñett ay xaaj la am na sëriñ soo xam ne seen bànneex yi bakkan yi ñi leen topp moom la ñuy jàmm maanaam ki la topp nu mu bëggee noonu ngay def ndax mu continuer topp la daal bi moo ko aayee nanga mu bàyyi ma waxee na war a julli ci mbooloo ngaa war a bàyyi caaxaan léegi tey mu wane ah sëriñ bi dafa métti xaaram bàyyi ma léegi bu la bàyyee nag tey yaa nekk ci dëgg lu lay wañ lu lay wañ waaye bu fekkee yow ku la topp rek nga bëgg ñu neexee ki la topp loolu ngay def mu ne am na ci xaaj boo xam ne seen bànneexe bakkani bopp bi moom la ñuy jàmm luñ mën a wax taalibe yi pour taalibe yi topp leen loolu lay lay loolu lañ ko wax bu laajee sax ña xaraamal lu dagan wane na nangam dañuy garaawal nii rek waaye am na maqaama yoo xam ci àggee dara nekku ci parce que dafa ko bugg def ba pare te taalibeem bi di gis ne kii li muy def dara nekku ci ban maqaama mooy daganal lu ñaaw amut maqaama guy dagana lu ñaaw maqaama caay caay boobu moom ku mu neex nga àgg ci ndax bakkan mën na ko bàyyi na ko sëriñ si mooy ñi nga xam ne bu ñu waxee wax lu baax bu ñu defee def lu baax seen xaal daf lay jegeloo yàlla seen wax daf lay jege yàlla la nga ànd ak ñoom ku nga jege yàlla عليك صلاة الله ثم سلامه تقيني شر السحر النافذ النفس لأن يلا نمر فقل حي aji njabar buy def ay njabaram di fasaka tëbli salaatullahi wasalaamuhu adida maxaaliq muhaymin xaytu bas yal na yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli goo xam ne dana tolloog mbindeef yàlla yi fu ñu ko mën a tasaare aymal ali kiraami sahbi adida alladi waafa bi ruux id nafas yal na yàlla juru ci yonent bi li mu tolloog lim bi nga xam ne jibril alayhi salaam ñëw na ko yonent allahumma salli ala sayyidina sayyidi ya rasul incha allah. بسم الله الرحمن الرحيم وعده لشبابه بالفوز بشروط التقوى والامتثال والاجتناب إخواني وجيراني وخدامي وشبابي بعد السلام يعلموا بأني ضامن لكم أن تفوقوا أقرانكم في العلم والمعرفة والدرجة والغنى وسعادة الدارين بشروط منها ترك اللهو واللعب مطلقا اقتفاء آثار الصالحين والعمل والعمل بما علم علمتم على قدر الطاقة والمحبة في الطريقة وأهلها واقطعوا ما بينكم وبين أعدائكم وقفوا على ساق الجد في كل ما أمرتكم والسلام وتوبتكم مقبولة وسعيكم مشكور والسلام إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاني مدينة كرخ lii leetar bu gàtt la la mujjee mooy seen tuub luñ nangu la mooy ne am na lu xewoon luñ doon dégg waaye dafa wax ne yéen samay mbokk yéen samay dëkkandoor yéen samay liggéeykat yéen samay waxambaan ndaw yi gannaaw bu ma leen nuyoo xam leen ne maa ngi leen di garanteel ngeen raw seeni maas ci xam-xam ci maarifa xam yàlla ci daraja ci koomal ci texeeg àddina ak àllaaxira waaye ci ay charte bokk na ci charte yooyu bàyyi fo ak fontu dafet ak topp jeexiti saalixin yi nit ñu baax ñi mm-hmm. wàllu yeeg yonent yeeg ak jëfee li ngeen xam ci seen kem kàttan xam nga lu baax defal lu baax xam nga lu bon dañ ko aaye teg ko ak bëggante ci tariqa bi ak ñooñ tariqa bi dagg li dox seen digganteeg noon yi nga xam ne dañ leen di tardeel ci lu dul dara nangeen ngeen taxaw temm wagu ci lépp lu mu leen digal wasalaam seen taw tuub nangu nañ ko seen jëf gërëm nañ ko bind loolu mooy Ibrahima kon li mu wax mag ñi wax ko dëkkandoor yi waa ñu ko moom la wax ndaw yi ndax moom lam doon tëbbaate ay mag lay tëbb ay ndaw sawa un sixaaru والكبار كالقرب الحبيب والمزار ba mu waxee laa ilaha illallah bool ma balee ci moom ku ko dégg àgg ci yàlla mu ne ndaw ñeeg mag ñi ñoo ci am moo tax it li mu diglee ay ndawam ay magam loolu la diglee ay ndawam nga ci leetar démb wax ne ne seen kilifa yii fi teew nga xam ne am na ci ñoo xam ne ay ndaw lañ ci xat waaye ay mag lañ leen di mag boo mooy jëf-jëfi mag ñi rek bàyyi li mag ñi bàyyoon dem li mag ñi dem rek fa mag ñi jëm lañ jëm allahumma salli bi ñëw na moo di Barhama. Momo Barham TV